alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala subhanaka laa ilma lana illa ma allamtana innaka anta alalimu alxakim allahuma allimna ma yanfauna wanfana bima allamtana wa zidna ilma amma baadu fa assalaamu aleykum wa rahmatullah mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ndokkeel ci wu koor gi di ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu nangul ñu nangul leen suñu xadisu tey mooy wax ji yonente bi alayhi salatu wasalaam wax ne taxarraw leylata al qadri fi l ashri al awaxiri min ramadan xadis boobu mi ngi ci sunanu tirmidi suñu yonente alayhi salatu wasalaam dafa wax ne guddi gu màgg googu nga xam ne mooy laylatul qadr te bépp jullit di ñaan yàlla dajeek moom bépp jullit di mbébate dajeek moom ngir ñaan ca yàlla nangul ko ngir ñaan ca ak jaamu ca yàlla subhaanahu wa taala jéggal ko yërëm ko guddi googu yonantu bi alayhi salatu wasalaam da koo yitteeloon lool bu koor gi masaana ñëw da ko daan wër di ko seet mu jaral ko mu laxasaayu woon fukki fan njëkk yi mu daan itikaaf loolu dinañ ci ñëw insha allah mooy toog ci jàkka ji di jaamu yàlla bàyyi yittee addunaam yépp di jaamu yàlla amaana mu daje guddi googu bi mu ko defee ci fukki fan yi njëkk yi ba ab diir ñu xamal ko ne ko nekkul ci fukki fan yu njëkk yi mu dem dàkk ko ci fukki fan yu diggu doomu yi bi mu ko defee ab diir ñu xamal ko ne nekkul foofu ci la dem ci fukki fan yu mujj yi noonu la continuer di ko def di ko def ba ni mu génnee àdduna alayhi salaatu wasalaam kon ñu xam ne kon ci fukki fan yu mujj yooyu la nekk muy fukki fan yi ñuy dund te fukki fan yoo xam ne fukki fan yi ngëneel la bu musaana ñëw yonent bi alayhi salaatu da ci daan yokk ay jaamu yàllam waaye da daan yitte woo tamit di jeex guddi googu nga xam ne mooy guddik laylatul qadr naam da daan jaamu yàlla ci fan yëpp da daan yàlla ci guddi yëpp waaye tamit mbébatoon na lool dajeek laylatul qadr te loolu li mu ci jublu mooy jàngal xeetam ak ñaax leen ci ñu góor góorgóorlu ba jéem a fexe dajeek laylatul qadr te dajeek moom ci jaamu yàlla ak ci góorgóorlu ci lu baax loolu moo tax mu dem bani xeetam taxarraw laylatal qadri fi l ashri l awaaxir min ramadan mu ne seet leen guddi googu nga xam ne mooy guddik laylatul qadr ci fukki fan yu mujj yi ci weeru koor mooy guddi gu màgg ndax nee nañ li tax ñu tuddee ko laylatul qadr mooy li yàlla subhaanahu wa taala wax ne inna anzalnaahu fi laylatil qadr yàlla ci boppam moo ko ko tuddee ci beneen yoon mu ne inna anzalnaahu fi laylatin mubaraka fiha yufraqu kullu amrin hakim inna anzalnaahu fi laylatin mubaraka inna kunna mundirin fiha yufraqu kullu amrin hakim yàlla wax ne bis guddi googu mooy guddi gi nga xam ne guddi gu barkeel la mu tuddee mu jëfandikoo baatu barke muy di wane barik yiwam ndax guddi goo xam ne moo gën junniy at guddi googu guddi gu bëri yiw la mu ne fiiha yufraqu kullu amrin hakim ci la ñuy tàqale ci la ñuy détaillé bépp mbir boo xam ne yàlla subhanahu wa taala atte na ko ci jaam ñi ndax yàlla li mu bind ci jaam ñi bind na ko ci seeni mbir laata mu leen di sàkk ci téere ba nga xamante ni moom mu nga nekk fa moom ñu ko tuddee lawxul mahfuuz waaye loola ci lay jël di jox malaaka yi li nga xam ne moom la ñuy wéyal di ko doxal ci jaam ñi loolu at mu jot yàlla def ko mi ngi koy def ci guddi googu nga xam ne mooy guddik laylatul qadr muy kon guddi goo xamante ni guddi gu màgg la bi yàlla di wàcce alquran itam da koo wàcc ci guddi googu du ci du ci wàcce gim ko wàcce mu ñëw ci yonantu bi alayhi salaatu salaam waaye wàcce gim ko wàcc ba mu ñëw ba ci asamaanu àdduna mu wàccee ndoo ko lépp ba foofu ginnaaw gi ci la soo a jóge foofu di wàcc di ñëw ci yonantu bi alayhi salaatu salaam bu yàlla taamoo guddi googu ngir wàcce ci alquran ne inna anzalnaahu fi laylatin fi laylatil qadr fi laylatin mubaraka ci beneen aaya ba di aayatu duxaan li muy tekki kon mooy guddi gu màgg la bépp jullit war naa góorgóor def kéemtalaay kàttanam ba comme ni ñu ko suñu yonante alayhi salaatu salaam digalee bu fukki fan yu mujj yi duggee mu góor góorlu def kéemtalaay kàttanam ngir daje ak guddi googu ci lu baax ci kaw jaamu yàlla ndax bu naan jeex leen ko jeex gi mooy jeex ngir am ci yiwam ak ay ngëneelam jeex goo xamante ni ngir def ci ay jaamu yàlla ak sàkku ci ngërëmul borom bi subhaanahu wa taala loolu la ci jublu ci digle gi kon yàlla nañ yàlla subhaanahu wa taala dajale ak laylatul qadr te lépp luñ ci def ci lu baax yàlla ful ko nangul ñu ko yàlla def ci ñun yërmandeem ak njëggalam wasalaamualeykum wa rahmatullah ko ba mu tàmbali waat koor dafay yeesalaat yéene bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam pour mu jàngal leen ci alquran de plus bi jàng siira ndax mooy jaar jaari sunub yonente bi yàlla yónni ci ñun téere bi di lumaatul itiqaad alhaadi ila sabili rachad téere la boo xamante ni comme ni nga gisee tur